bi jamono ji comme euh, niñ ko xamee elle est rythmée par l'affaire Ousmane Sonko gannaaw bi tribunal d'instance hors classe de Dakar joxe verdictam le 14 décembre dernier jox Ousmane Sonko ndam euh, ci coow boobu nga xam ne am na ko état du Sénégal avant loolu également gisoon nañ tribunal d'instance bu Ziguinchor joxoon ko ci ndam mu nekk deux fois en l'espace de deux mois euh, mais liñ ci seetlu mooy ba ndigg ni Ousmane Sonko mënul jot ay fiche de parrainage am ngir mën a bokk ci élection présidentielle bu 2024 ban jàngat nga am ci bi waaw xam nga je crois que li ma mën a wax rek ci pour waxtaan bi mooy. Mhm. Euh, ñu nekk ci pouvoir bi pendant très longtemps dañu ne y compris président Macky Sall ci boppam. Mhm. dafa wax ci médias internationaux yi wax adduna yëpp dégg ko ne mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko affaire bu privé la waaye ñëpp xamoon nañu du affaire privée. parce que mbir mi ñëpp xamoon nañu état Sénégal n'est-ce pas su dee moom moo organiser mbir mi waa ñi jiite état bi à un moment donné affaire bi dañuy dem ba xam ne affaire bi mun na leen servir maanaam mun nañ ko utiliser njëriñoo ko ci pour gàllankoor Ousmane Sonko mu bañ a nekk candidat à l'élection présidentielle kon même su ñoom ñoo ko organiser waaye dañ ci profito jàpp affaire bi téye ko di ci communiqué yóbbu ko ci yoon kenn xamul affaire nu mu évoluer ba egg finalement ci àtte bi mu eggee ci àtte tamit euh, ñu condamné Sonko par contumace hmm. ndax soo seetee bu baax défiance su état Sénégal par rapport à la loi hmm. xam nga état de droit état de droit mooy état boo xam ne loi dafa nekk ci kanam ci kaw ñëpp loi dafa nekk ci kaw président de la république nekk ci kaw ministre de l' intérieur nekk ci kaw directeur général de la police nationale nekk ci kaw directeur comme haut commandant de la gendarmerie nekk ci kaw képp ku nekk Sénégal rek n'est-ce pas dans état de droit état ci boppam. Mhm. loi dafa nekk ci kaw loolu moo tax suñu condamné état. day exécuté wu loolu mooy état de droit. Mhm. mais suñu nekkee ci état boo xam ne. Euh, état ci boppam. wala boog ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk état ci boppam dañu bañ a conformer ci loi xalaat ne parce que dañ leen fal ñu jiite état bi ñoom ñu ngi ci kaw loi bi rek nekkatu ci état de droit. ñu ngi ci benn état autoritaire. wala benn état policier boo xam ne. dëppoowul ak démocratie. te loolu fi ñu ko commencé mooy. keroog bi ñu jàppee Ousmane sonk ci yoon bi ànd ko n'est-ce pas barricade ci biir këram keroog la contumace bi jeex. parce que contumace dafa ne keroog bés bés ki nga xam ne moom la ñu condamné par contumace bés bu ko yoon tegee loxo rek wala bu bés bu ko état tegee loxo rek n'est-ce pas. keroog la contumace bi jeex. kon ñoom ñu dem jëli ko Koungheul. andi ko barricade ko pendant cinquante jours après ñu takkal créel ko encore beneen affaire. arrêté ko yóbbu ko police téye ko ba léegi ñu nekk contumace boobu jeexul. ba ministre de ma justice Ismaïla Madior Fall. sañ yëkkati baatam dem Jeune Afrique nest pa pas hmm. di ne nest li nga xam ne moom moo tax jàpp ko hmm. bokkal ak li ñu ko toppee ba condamné ko ci contimence kon contumace bi bokk ci hmm. xam nga loolu mooy fooyeelu nit ñi loolu da wax waaw xam nga loolu mooy fooyeelu nit ñi parce que dama la wax rek parce que nit ñaa ngi ñuy reetaan ci bitim réew te ñoom xamuñu ko xam nañu ko sax mais dañu toll foo xam ne tey dara mënut leen arrêté parce que ñoom dañuy ragal Sonko présenté woo Sonko nekk président. alors alors li ñu seetlu démb mooy euh, mandataire am ay Ayib Daffé ak kenn ci avocat yu koy lal maître Ciré Clédor Ly dem nañ ca DGE e, joge fa dem daaf tàbbi sax ca ministère de l' intérieur ñu gis ne wàcc nañ fa ay ay forces de sécurité justement pour mën a euh, bloquer ñooñu ñu am accès foofu noonu comment en est-on arrivé à un niveau où quelqu'un am ndam. aux yeux de la justice te mënul fexe ba bénéficier wu à cette victoire là. xam nga su dee dañu nekkoon ci état boo xam ne ñi ay démocrate ñoo ko yore. Hmm. su dee dañu nekkoon ci état boobu nag homme d' ñoom ñu yore état bi n' est ce pas. Hmm, c' est à dire. su dee ñi nga xam ñoom yore réew mi tey hmm. ay homme d' état la ñu woon. ay démocrate lañu kon du ñu egg sa ci affaire juge Thione Niang Thione. Euh, Ousmane Racine Thione Ousmane Racine Thione. bi Sabasy Faye àtte Ziguinchor fa la waroon yem waaye la peur de voir Sonko être di du Sénégal la peur parce que discours Sonko. Mhm. discours radical bu foofu laa bëggoon ñëw si justement est-ce que discours bu mu doon tenir. bu radical bi muy tenir. Mhm. moo tax tey ñoom yëpp dañuy ragal dañuy ragal en tout am na ñoo xam ne. Hmm, euh, commencé par le président de ak ñi ko wër peut-être famille am dañuy ragal tey. nu mënuñu imaginer perspective bu Sonko di nekk président de la république te bu may nekk président de la république mooy bañ fexe par tous les moyens ak lu mu leen mënta jaral moom na bañ a présen na bañ a présenté wu ba muy nekk président de la république loolu moo tax après juge Thion sa basi Faye lu mu àtte mais ñu def recours cour suprême. cour suprême bi mu bi mu xoolee mbir mi. mu dellewaat ko ci juge d'instance de Dakar pour mu àtte ko. kooku mm. confirmé waat. Mm. nest pas n'est-ce pas euh, jox leen encore injonction. Mm. pour ñu bind ko liste électorale. waaye ba tey nanguwuñu mais li ñu gis fan yàlla xam nga lan lan moo tax mu graaw mm-hmm. mooy code électoral article 47. daf leen def obligation. pour ñu exécuter décision juge Thion juge euh, Ousmane Racine Thion. li mu defoon obligation pour ñu exécuter décision J sa Faye mhm. noonu la article 47 bu code électoral def leen obligation pour que immédiatement ñu exécuter décision juge mhm. Ousmane Sène Thione waaye tey ci maa tey la ñu nekk mhm. loi bi li la wax waaye ñoo lànk duñ ko def. ils l'ont réussi après le verdict loi bi li la wax waaye ñoo lànk duñ ko def ñoo lànk duñ ko def. duñ ko def parce que ñun ñoo yore ñun ñoo yore ñun ñoo yore euh, gendarmerie ñun ñoo yore police ñoo lànk duñ ko def ku génne pour manifester. ñu jàpp la tëj la ci biir kaso. fa la ñu toll tey kon nekkatuñu état de droit te loolu ONG yëpp a ko siiwal tey. que Sénégal nekkatul état de droit. te on est dans un autoritaire boo xam ne. loi doxatul fii volonté wu Macky Sall moom moo fi dox. déjà avocat mi annoncé te li ma bëgg mooy li ma bëgg li ma bëgg leeral mooy. Mhm. mooy lan waxuma ne Sidiki Kaba avant Sidiki Kaba ki fi nekkoon avant moom. Antoine Diome Antoine Diome waxuma ne euh, Thiendella Fall amul responsabilité. Mhm. ak commissaire bi Fiacre euh, je crois Sambou. Mhm. am nañu responsabilité. ci situation waaye premier responsable mooy ki Sall. ci naka parce que régime présidentiel la ñu nekk régime boo xam ne pouvoir yëpp président moo ko yore. direction générale des élections Diène de la Fall ak direction générale directeur u DAF ak ministre de l'intérieur mënuñ fi nekk di défier la loi su dul Macky Sall moo leen jàppale moo leen encouragé moo leen ko sant. li nga jàpp ne Macky Sall moo ne ci ginnaaw li ñu gis ni tey mm-hmm. li ñu gis ni tey ci makki Sall rek la mën a jógee nañu waxante dëgg nee na moom le gardien la constitution keroog ba mu defee discours am. pour annoncer ne bàyyi na dootul nekk candidat troisième mandat lan la waxoon nee na dama jël décision di dootuma nekk candidat au troisième mandat waaye dinaa taxaw tem pour que toutes les décisions de justice soient exécutées waaye mm-hmm. waaye ban décision justice la doon wax bi nga xam ne moom ma koy permettre mu jàpp Sonko yóbbu ko ci biir kaso mm-hmm. waaye boo xam ne c'est favorable à Sonko boobu moo bokk ci décision xam ne war na ko appliquer. maintenant maintenant que l'affaire est toujours en cours parce que annoncé nañu un pourvoi en cassation. Oui. exécutif bi na la mën a intervenir ci situation bi justement préoccupation. mais ils doivent exécuter immédiatement la décision du juge Ousmane Sène Dione dañ ko war exécuter immédiatement waaw nonobstant moom la Cour suprême doit après. Mm-hmm. dañ ko war a exécuter immédiatement parce que loolu la loi santaane. dañ ko war a exécuter immédiatement suñ ko deful ñu ngi défier loi ëllëg mun nañ leen topp ci loolu waaw kenn de la faal hmm. ak ku munte doon ci état bi ëllëg mun nañ leen topp ci li ci li nga xam ne ñu ko ci acte ñu posé ni tey acte ñu posé ni tey mun na wase la haute trahison parce que président de République dañ ko élire pour que institution yi mun a dox hmm. pour que état de droit mun a dox fi ci biir Sénégal république la nekk hmm. l'administration le président de la République c'est la clé de voûte des institutions le président c'est la clé de voûte des institutions maanaam institution yépp moom moo war a faxe ba institution yi di dox nu mu war a doxee fexe ba loi mun a dox fii ci biir Sénégal waaye su dee moom ci boppam président la République moom moo joxe ndigal wala moom mooy seetaan ñu défier loi di barricade ay institution pour que koo xam ne am na décision de justice xam ne daf ko jox ndam ñu tere ko pour mu dugg rek DGE mm-hmm. n'est-ce pas dem jox ko directeur général des élections di fa déployer police pour mu ñu dugg DGE déployer ay policiers pour que mu ba ñu dugg caisse de dépôt et consignation mais lu la réew. Mm-hmm. alors déjà ces avocats. mais ñu ñuy reetaan ces loolu mbir mi est-ce que mbir mi xaaral mbir mu mm-hmm. nekkatul mbirum rek ak état du Sénégal. nekkatul mbirum Pastef ak état du Sénégal mbirum askanu Sénégal la. ak ñi nga xam ne ñoom la ñu faloon 2012 fal leen 2019 pour ñu jiite réew mi waaw nekkatul problème entre Sonko et et et Macky Sall. ou ou Pastef et et et Macky Sall. problème bi léegi askanu Sénégal la askanu Sénégal la yàpp yàbb maanaam dañuy fal ay nit pour ñu jiite réew mi. ñu jël seen bopp teg seen bopp buur buur sax ci biir adduna bi dañuy respecté les lois waaw ñoom dañuy seen bopp teg seen bopp au-dessus de la loi. Mm-hmm. te loolu. loolu mun na andi fitna bu nekk ci biir réew mi. mais askan boobu ngay wax justement Seydi Gassama sentiratuñ leen ci combat bi alors qu'au début à chaque fois que Ousmane Sonko mos a nekk ci situation yi ni mel dañ doon génn de même que l'opposition di nakarlu di manifester wu xam nga. mais actuellement on a constaté que vraiment y a une accalmie en tout cas ils ont disons-le comme ça déposé les armes. il y a pas d'accalmie on est en face d'un état violent on est en face d'un état violent depuis 2021 Macky Sall. après événement 2021 Macky Sall musul xalaat dajale waat Sénégal yi fexe ba Sénégal yi booloo juboo loolu musu ko xalaat depuis 2021 mu ngi ngànnaayu rek fu mun di jënd ngànnaay rek jënd na ko hmm. recruté na takkadeer yi yokk seen nombre alors que enseignants ñu ngi manqué ci école yi ñu ngi naan am 8000 enseignants yoo xam ne manqué nañ ci école yi hmm. waaye lu mu recruté ci takkadeer mu ëpp li nga xam ne moom moo manqué ci ay ci rek ci l'école yi dafa ngànnaayu gis ngeen au mois de juin ñaata nit ñoo de da da ngay dégg li métti ñaata nit ñaata nit ñoo dee au mois de juin. tué ñoo xam ne force de sécurité ñoo leen rey ñi nervi yi ñoo leen rey. est-ce que da ngay. au mois de juin da ngay dégg li métti Moussa Diop wax. ci ci achat d'armes non non loolu mënu ma ko dëgër mais li ma xam mooy. Mhm. te li ñu constaté mooy la répression ay été brutale au mois de juin brutale. qui a été Plus d'une vingtaine de Sénégalais ont été tués quand même à Dakar et dans les régions. Des centaines de personnes ont été arrêtées te boppu Pastef yëpp mu ngi ci kaso bi te képp ku xam ne responsable ci Pastef rek ngay maire. à commencer par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. ñoom ñu ngi ci biir kaso. Mhm. maire Parcelles Assainies mu ngi ci biir kaso ak ñeneen maire ak ñeneen maire. Mhm. n'est-ce donc Macky dafa ngànnaayu. dafa yokk takk deer yi pare nag pour xeex utiliser appareil d'État police ak gendarmerie pour xeex contre ce jeune parti boo xam ne extra loolu sénégalais yi man su conseil bi ma leen di jox dama leen di soxlaw leen génne ci tali bi pour manifester cela ne veut pas dire que da ngeen renoncer à ce droit là mm-hmm. continuer leen di bind di demander autorisation de manifester waaw continue di koy def. parce que nag histoire régime bi nañ ko bindee ëllëg xam nga nekk président rek. n'est-ce pas du loolu moom importance. nekk président. am na important waaye ni nga doxalee bi nga nekk président moo ëpp solo. Mhm. waaw régime Macky ni nañu bind histoire am te histoire am bés ñu ko bindee. ñaaw ñaawteef yi nga xam ne def na ko yëpp ci wàllu ak ak yelu doomu aadama dinañ ko bind mhm. te dina ko topp fi ñu jëm te ko topp justement mooy le pourvoi maa ngi ko doon wax sànq ils ont déjà annoncé le pourvoi en cassation mooy avocat yi la yor état bi war fa dem peut-être ce sera Euh, vers le 25 le 26 en tout cas pour voir bu ñu koy def ils vont utiliser en tout cas la voie la plus lente justement pour retarder affaire bi ni ko ñenn ñi di waxee mais xalaatoo ñu dem ci pourvoi boobu noonu justement ñu casser la décision du tribunal d'instance hors classe de Dakar bu ñu sukkandikoo ci li ngay expliquer nii. waaw xam nga ñoom dañuy yaakaar ne may saray nekk ci kaw ñooñu li ñu bugg rek loolu lañ leen defar loolu lañ yaakaar. magistrat yi nekk ci kaw kaw. waaw waa état loolu moo nekk seen bopp. Mm-hmm. day yaakaar ne may sarangam ñoom nekk ci kaw cour suprême constitutionnel parce que ay mag lañu. Mm-hmm. ñoom li ñu bugg dañ ko defar. bu ñu nax seen bopp te dañu toll foo xam ne képp kuy sénégalais rek. Mm-hmm. ngay magistrat eh, ngay alkaati ngay gendarme ak koo munte doon rek réew mi dafa toll foo xam ne lépp loo def rek n'est-ce pas. Mm. te daf te dëppul ak yoon rek askan bi dina la juger. sa njaboot dina la dinañ juger sa njaboot ëllëg kon képp kuy attekat rek lépp looy atte tey rek na nga xam ne makki Sall dina dem n'est-ce pas le le le le le 2 avril. waaye yow yow. n'est-ce pas ak sa njaboot di ngeen fi ci biir Sénégal. et que bëti la Sénégal di xoolee ak di xoolee sa njaboot war nga ko xalaat kon muy Cour suprême constitutionnelle bés bu ñu naaree àtte mooy nañu àtte ci yoon waaw kenn bu mu leen jaral n'est-ce pas ñu àtte ci loo xam ne teguñu ko ci yoon dara bu mu leen ko jaral du alal du neexa du du neex ak Macky Sall bu mu leen ko jaral. Macky Sall dina dem ñoom nañ fi des. àtte bi mbir la mais délai yi aussi mbir la parce que am na ñu bëri am na ñu bëri ñoo xamante ne seen xel ñu ngi ci forclusion bi comme quoi que Ousmane Sonko actuellement. waaw mais am nga toute obstruction yi def nii yëpp. Mhm. toutes ces obstructions là xam nga euh, waa Kër ko ñu ngi ànd ak ay huissiers di koy constater. nga bëgg a dem DGE pour ñu appliquer décision boo xam ne yoon moo leen santaane pour ñu appliquer ko immédiatement ñu bañ. barricade wu ñu ne duñ ko def. Hmm. nga yóbbu huissier mu constater nga dem DGE pour déposer sa caution DGE nga jël huissier mu constater mais loolu yëpp dañ ko yóbbu cour suprême dañ ko dañ ko yóbbu conseil constitutionnel. Hmm. conseil xam ne kii. n'est-ce pas bëggoon na présenté wu waaye pouvoir exécutif n'est-ce pas ñoom ñoo ko tere pour mu présenté wu voici les constats de agent assermenté muy huissier de justice assermenté boo xam ne moom moo def constat bi boobaa conseil constitutionnel n'est-ce pas ñu naree dogal ci kaw yoon c'est akkuta c'est akkulaay taalaay kon keroog n'est-ce pas war nañu rendre décision boo xam ne war na mën a tax Sonko présenté wu parce que on n'est plus dans un état de droit. Mm-hmm. su ñu nekk nag état de droit na xam nga ñooñu la ko war a protéger mooy attaquer ñoo ko war a protéger ñu mu war a fexe ba li nga moom la Sénégal yëpp di gis parce que. Mm-hmm. Sénégal yëpp a koy gis. waaw ma sa Sénégal rek mais adduna bi yëpp mu ko koy gis. Mm-hmm. waaw barke démb rek ñaari sénateur américain dañu proposé benn résolution au Sénat. mu ngi avancé ci biir Sénat bi. lan ci jublu na gouvernement Amérique. n'est-ce pas wax nguuru Sénégal bu organiser élection yu jaar yoon élection yoo xam ne ñëpp a ci bokk. kon tey àdduna bi ñu ngi leen di seetaan te résolution dafa comporter ay sanctions ci ñi nga xam ne ñoom ñooy gàllankoor maanaam processus électoral bi. ñi koy gàllankoor te xam nañu mooy ñoom Tendé La Fall directeur u DAF directeur u CDC n'est-ce pas. Mm-hmm. ministre de l'intérieur. ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk jamono yi. ak Macky Sall ci boppam. ñoom ñoo gàllankoor le processus électoral. y a des sanctions qui sont yoo xam ne nguur Amérique mën na ko jël ñu doon sanctionner ay dictateurs dans d' autres pays. ñu doon sanctionner Yaya Jammeh kan mu xalaat ne Sénégal dina tollu tey foo xam ne n' est ce pas. Hmm. dinañu dugg résolution ci Sénat américain. maanaam kuréel boo xam ne moo gën a kawe ci wàllu représentation ci États-Unis mhm. ñiy wax di préconiser ay sanctions. mais ñan ñoo dugal justement résolution boobu. mais c'est des sénateurs yoo xam ne euh, jotuñu dara ak Sénégal. des sénateurs américains. américain dañuy toog di suivre di am information inquiété wu nag ci lii xew Sénégal parce que xew Sénégal bés bu ëpp loxo mais mun na déstabiliser réew mi ci loo xam ne. dara la ko dul maa tey dinañu def lépp loo xam ne rek mën nañ ko pour kii bañ a nekk candidat ba muy nekk président waaw amatu rek amatu amatu maanaam ama ñoom amatuñu benn limite boo xam ne fixé nañ ko waaw xam nga Abdou Diouf Abdou Diouf ak loo loo ko mënutee am na foo xam ne daanu fa romb moom ak Ablaye Wade te mënoon na fa romb parce que métti woon na seen diggante ñoom ñaar hmm. Ablaye Wade am na foo xam ne mënoon na fa romb waaye mosu fa romb waaye ñi fi nekk tey di jiite réew mi ñoom amatuñu benn limite waaw lépp loo xam ne mun nañ ko def n'est-ce pas mm-hmm. pare nañu ko def pour que Sonko bañ a nekk président te man dama ragal sax même Sonko nekkee président mm-hmm. ñu bañ a nangu résultat bi ah <laughs> li may gis ni tey mm-hmm. ak li may gis ni tey même su dee Sonko même su ne conseil conseil dafa dafa autorisé Sonko pour mu présenter wu ci élection yi. su gagné du ñu nangu résultat ngay ragal mu gagné ñu fokkati résultat yi ci loxo. en tout cas ni ñu doxalee ni tey soo xoolee ni ñu doxalee tey. ñu doxalee tey. loi bi ne def leen lii ñu ne ñoo lànk duñ ko def di défier loi maanaam pare nañu. Mhm. def lépp pour moo bañ a nekk candidat bi rek nekk président kon su dee conseil constitutionnel ëllëg valide na candidature am ba mu nekk candidat. Mhm. man yaakaaruma ne njiit nañuy nangu résultat élection su défavorable la ci Ousmane Sonko duñ ko mhm. ni sax. jar na lu nekk. alors s'il le faut sax s'il le réew mi réew mi tàkk waaye duñu nangu rek Sonko nekk nekk président.